waaw d'abord damay sant gërëm ministrant ah, tey dimanche la waaye moom moo ñëwal boppam yónniwul kenn moo ñëwal boppam gis ñu dugg ci marché yi ak ah, marché yi ni mu mel mu duggandoo ak man ñu gis lépp loolu defe naa ne nag bu ñu ut autorité ñu mel noonu lañ soxla nga xamante ne li worof di wax yóbbante galgal ubu làmb moom ñëw na gis na kon dootuñu am jafe-jafe mu yéeg si fi mu gën a kawee ndax day siège conseil des ministres parce que lii mu gis nii dina si indi ay saafara boole ñun liñ koy expliquer ni ñu bëggee mu demee lépp nag kenn mënu ko wax si télévision d'ailleurs dina wax na ma dina gisante ak man pour que lii jafe-jafe yëpp ma wax ko ko lii mu man mu indi saafara vraiment ñun daal ñu mën a jàpp peut-être mënoo wax lépp mais ñun am na lu ñu war a mën a jàpp waaw xam nga dinaa la jàppale dafa yaatu te ku ñu xam fa nga jëm doo yegg nañu bàyyi rek lii moo waxante ministre war nañu waxante waat yeneen bu ñu paree bu laajee liñ ci mën a génne ñu génne ko si mais digal na ma jàppaleem te digal jàppale bi wane na ko ndax indi na camion jof ci ay produits jàppale ñu ko pour ci suñu système de lavage de mains donc loolu xam nga ndimbal la mais lii si ëpp solo mooy lii mu ñëw mu gisal boppam kon suñu ko waxee dina gis liñ ko wax ne ko loolu la te ñun am na décision yu mën a jël am na yu mënul jël donc te wakaam defe naa mesures yu forte lañ fi war a jël ndax dañu am fanweeri kaa ak ñaar mu am ñoo xam ne gëmuñu ko ba pare di gëmloo population bi ne loolu amul muy fanweer ak ñaar ci ay kaa yàlla dimbali nañu faj nañ ñaar fukk yi ba ñibbi nañ seen kër yóbbu nañu woon quatorzaine lu mat téeméeri nit yàlla dimbali ñu ne ñu tey ñëpp ñibbise nañu mais des na fukki cas te lii indi woon cas yooyu suñ sàgganee mën na ko indiwaat jël nañ ay mesures gis nañ ne mat na une semaine benn ñëw amaatuñu cas mais loolu warul tax nag ñu bàyyeeku surtout ñi nga xamante ne dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di gëmloo nit yu lu amul tax population bi dëgër nañ bopp boo leen waxee ne dara amu fi dañuy gën a dëgër bopp te am nag jàngoro ji xaju fi de ndax village lañ am ci biir village bi buñ fi duggee ñun ñi dëkk ci village bi xam nañu

vingt heures di pare jot ku nekk di jëkkante pour daw dugg ci biir kër kon li nga toogoon sa kër confiné wu yëpp bu heure bi jotee rek man nga ci for feebar bi ak cas communautaire yi donc loolu daal problème la ak ñoo xam dama yaakaar ne dañ amul fu ñu dëkk tamit ndax da ngay dàq ba sonn mais dañuy ñëwaat da ngay dàq man teggi naa yi teggi naa yi ku ma fekk man maay sama fekk nga nangu bi max sama équipe bi bi lu ne def naa ko gendarmerie dañoo ñu jàppale ba ñoom sax dañu sonn te population yi gëmuñu ñu li ñuy def gëmuñu te nit boo bëggul dund yow wul dund nga may ñu ñun ñu bëgg a dund ñu dund mais surtout ñi nekk ci réseaux sociaux yi di gëm doon ay wakaamois di gëm loo ne benn cas amu fi di laaj ñi ñi naan fan lañ dëkk ak seen tur yi te xam nga loolu kenn du ko def. alors circonstances mel ni yeneen mesures moo war a topp est-ce que yow. nangu dakaar à yëpp laa bëgg ñu confiner ndax bu ñu confiner Wakaam confiner wu ñu feneen fii am ñu amuñu cas communautaire dama man bu doon sama sago fukki fan ak juróom kenn du génn ku ko fee ku feebar feebar bi di dina feeñ ci diggante bi booy wàll it xëj na sa cas sa kër rek ngay wàll te yooyu après ay cas contact la lay doon dinañ mën a toppaat feebar bi mais bu ñu bàyyee nii man xaw ma am naa feebar bi. te su fekkee am naa ko xam nga man tey bu ma ko amee ay centaine de personnes la ñuy confiné ji man rek samay contact rek ay cent personne lay doon donc nañu jël fukki fan ak juróom état joxe na dund bu doy ñun dinañ jënd dund bu doy dolli si ku nekk sa biir kër danañ la fa fekk danañ la dimbali wakaam yëpp laa wax ndax li ñu jënd ñun ci ay tonnes ceeb bari na li ñu état di jox bari na comme problème lekk la ñuy wax te mën nañu régler problème mu lekk bi fi lee fukki fan ak juróom nañ jël décision bi nañ ko jël ngir yàlla parce que xam nga dañuy fàtte suñu économie ñëpp a taxaw man économie locale laa yor mënatuma recouvrer dara kon état li muy ñàkk ñaata la ci réew yu néew doole comme ñun même bu dul feebar bi il faut que feebar bi gaaw fi joge ni mu jógee Mauritanie ñu dellu suñu activité